sa samba booyul euh, te mbay ma ñaaw lu ñor mu jébbal baayam ci réew mi bismillaahi rahmaani rahiim kon ñoo ngi fii ci waañ wi euh, jàkkaarloo ko euh, soxna Mbène Ndiaye di jëwriñu soxna yi ñu yàgg ànd ak moom ci liggéey bi yaakaar ci ren lay toll ci fukki at ak benn Euh, euh, pëstéef bi ak taxawaay bi ñu rafetlu ko lool ñu bëggoon koo jox nag euh, tàllal ko suñu micro waa Tawfekh Production mu def ay leeral ci waañ wi ak liggéey bi ñoo mbokk soxna yi naka lay doxee ci màgglu Kazu Rajab bi. waaw salaamaaleykum wa maa ngi nuyu mbokk yëpp liggéey waañ wi daal jiite giñ ci jiite sant nañ ci yàlla. ndax du du maanaam lu ñu liggéey ci yoon bi moo tax ñu jiitu xëy na yàlla lu mu ñu jagleel la rek ñu ciy sant yàlla bu wér nag te di ko liggéey ak xol bu sedd buy yàgg koo bëgg a liggéeyal sëñ Fallou di ñaan yàlla di ko taxaw ba keroog bu ñuy moom rek ci kàttanam ak mbaaxam waa liggéey bi nag nii rek lañ koy joxe góor yàlla yi dañuy jàpp ji soxna yi jàpp ñëpp jàpp kenn bàyyiwul macha allah ñëpp ay jàpp kenn ku nekk def nga ko sa yëfi bopp daal. waaw ndax am nga fi ay yëngal yëngalkati mbana daal maanaam mbanay ceeb yooyu bu fekkee ne dafa xaw a ñu ngi nii ñoom bàyyi laat ñoom ñu ngi nii toog ñëpp yëngal mbana yi waaw ñëpp ay jàpp ci mbana yi macha allah liggéeyu di si kon góor yàlla yi ñoo koy amee liggéeyu di si yëpp yàlla yi ñoo ñu koy defal jërëjëf kon yaakaar naa loolu leer na Euh, ñoo ngi taxaw ak euh, jëwrin Modou Fall euh, Touba Dakar Géejawaay muy jëwrinu waañ wi di ànd ak mbokk soxna yi ndax ku ne xam na ne waañ wi dafay am ay liggéey yoo xam ne góor yàlla yi ñoo koy mën a taxawee mm-hmm. kon ñu fas yéene ko tàllal suñu micro en tant que Tawfekh Production mu def ay leeral ak soññe ci magal waaw xanaa sant yàlla julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba bu baax a baax di sant Serigne Fallou di ñaanal si mun Muntaxa mu yàgg fi loolu te ba naal yi mu yéenee liggéeyal maam Cheikhouna Cheikh Ahmad Bamba mm-hmm. mu àggale kook sagoom te ñu ànd kook moom. ak sëriñ Cheikh Jëmb Fall. ak bépp cheikh boo xam ne sëriñ Touba moo seexal sa maam. bu loolu weesoo it liggéey bi yaakaar na Euh, seere saa ngi nii toog ndax ñun ñëpp dañoo ànd di liggéeyal sëñ Touba ci toolub sëñ Fallou bi di ci ànd ak sëriñ Abdou Mbacke mii nga xam ne mooy sunu bunt ci yoon wi mhm. ñu nekk fii ci waan yi nag euh, mhm. soxna Mbende di jëwriñ jigéen ji mhm. yàlla def ñuy jëwriñ ju góor ji bu ko defee ñu àndandoo takkoo bokk ndey bokk baay di liggéeyal sëriñ Fallou ci lii nga xam ne mooy toolub sëñ Touba bi ci Kazu Rajab gi yéen dafa mel ne euh, bu ñëwee suba la màggal ngeen di ñëw Touba waaw suba la ñuy ñëw ñëwee nag nekk ci liggéey bi Euh, ndax liggéey bi li ñu fi war daa bari lool te it fédération la mhm. daanaka mënuñoo lim mhm. ñun daayira bi nekk Dakar la ñu jiite mhm. waaye nag lépp fédération la jëwri ñaa ngi fi ne gaañ pëstéef bi ma gis nag ci ndaw ñi nga xam ne fi ay ndaw ñoo fi nekk te pëstéef euh, bi am na solo lool ban taxawaay ngeen di taxaw ci at mi ba boo leen accès ci bis bi mën a am résultat boobu waaw taw euh, pëstéef gi de moom li koy waral lenn rek la daanaka mbir moom boo ko waajee te waaj ko at suñu borom mën na laa dimbali ba li nga ci bëgg nga am ko ci te daanaka dañ leen cee tàggat mhm. buñ koy waajit buñ fi jógee nii mhm. bu ñu demee première réunion ci la ñuy commencé nekkaat ci waajtaayu Kazu Rajab mhm. moo tax bu ñu demee ndaw ci loolu lañ leen di tàggat ndax dañoo bëgg ëllëg ñoom ñu nekk ay mag yor lii ñu yor di ko doxal bu demee ci loolu donc la ñuy nekk ak ñoom saa bu ñu réunion ci la ñuy nekk bu ñu daayiraat dinañ ci soññee ñu wut seenu kees di ko doxal ba saa bu mbir mi dikkee kenn ku nekk da nga yëkkati sa addiya joxe ko mu tolloog li nga xam ne moom lañ la laaj bu ko defee ñi nga xam ne suñu borom mën loo mën loo na leen gan mhm. kenn ku ci nekk làmbaaj sa addiya sa këmtalaayal kàttan mhm. def ko addiya ñu Fall def ko ci bis bi moo waral bis bi di mel nii jërëjëf jërëjëf euh, jëwrin Modou faal yaakaar naa ku dégg ni mu waxee dina am lu bare bari loo leer ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu lu ñor mu jebal baayam ci réew